ak euh, euh, tàggat yaram euh, njëkkee kook Ligue des champions Afrique ak génération foot qui s'est qualifiée pour le second tour. effectivement Pape Cheikh génération foot ci prochain tour Ligue des champions africaine bi nga xam ni ci week-end bi fële ca Thiès lañu amaloon seen match retour bi ñu ngi ko seqoon ak benn équipe fële ca Liberia mi ngi tudd LPAC Oils ñoom ci match aller bi ca Monrovia dañ leen daan dañoo daanoon génération foot benn bal ci dara ci match retour bi nag génération foot daan leen daan ñetti bal ci dara mu nekkoon euh, match bu am solo bi nga xamante ni euh, coach bi di Djibril Fall wax na ko expliquer euh, victoire bi mu ni mu amee solo ci club bi di Génération Foot mën nañ ko déglu. xamoon nañ ni match bi ñuy joué Libéria waroon nañu ñëwaat Sénégal ak bu dee sax benn point parce que amoon nañu place pour def loolu foofu mais bi ñuy ñëwee. ñu def jàngat par rapport ak match bi def analyse xoolaat def vidéo waxtaanaat ak joueurs yi wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu amoon ba équipe ba léegi ñu ne leen il faut que ñu rectifier loolu fii nii ñaax joueurs yi xamal leen aussi match la bu ñu war a ñu travailler ci li nga xam ne moom la ñu war a parce que xamoon nañu ñoom. ils étaient dañoo faibloon ci ci ginnaaw ay joueurs yu mag la yuy yéex boo xam foo ñu dawloo leen mais match bi aussi foo ñu dawloo et que ñoom dañuy sànni ay bali gudd di li ci ëpp di jouer deuxième ballon donc loolu aussi ñu réglé ko ci ginnaaw donc yàlla def bi ñu defee analyse yooyu yëpp daal travailler ak li ñu war a travailler joueurs yi sur le plan défensif ak sur le plan offensif ba yàlla may ñu ndam tey. bi ñu mitanwee d' ki nga xam ne moo ci ëpp li mu raté Jean-Louis dama ni ko mu gën concentre parce que occasion yi mel ni dina amaat ci deuxième période bi. mais nag aussi am occasion di ko raté ci nga dugal benn but rek day xaw a tiitloo parce que adversaire bi déjà day joué ci faux rythme te moom day fexe nu mu exploité bu dugal benn but mu gën a metti donc li ñuy fexe mooy bu ñu ñëwaatee ñu gën a def rythme ci match bi gën a yokk rythme bi gën leen a attaqué ba pare ñu gën a ci occasion yeneen yi amaat parce que jàppoon nañ mën nañ leen a dugalaat but donc loolu lañ leen ñaax parce que il fallait pas ñu ñu ñu ñu ñu ñu sonal leen maanaam téye leen il fallait que ñu remonter leen moral bi loolu lañ gën a def surtout ñi nga xam ñoo doon raté occasion yi xamal leen daal occasion yi mel noonu dina amaat pour ñu mën a ñëwaat ci match bi. globalement parce que tey bi ñu daje amaguñu benn vidéo ci moom li am importance mooy ñun ñu bàyyi suñuy jour ñu récupérer déjà def benn jàngat suñu équipe parce que aussi même suñu gañee 3-0 il faut que ñu vigilant parce que du lépp moo baax il faut que ñu def dem aussi bu ñu noppaloo ba pare xoolaat match bi ci image yi xool ñun problème yi nga xam ne aussi am nañ ko parce que ñàkkul ci match bi am nañ ay problème pour jéem a régler loolu en attendant que ñuy am vidéo adversaire bi pour xam maintenant nan lañ koy aborder. waaw deuxième bi bi euh, dañoo déborder ci Xaarim Jaw Xaarim Jaw centré ma contrôlé jël sama temps soo xoolee bal bi lan naa ko deux fois quoi dama ko laal deux fois doo ko dóor waaw man man man man man nekk. Génération Foot donc qualifié au second tour. effectivement euh, match boobu ñuy dugal bi di Mame Limamou Gueye ak Chérif Bayo ak kii di Youssoufa euh, Youssoufa Diagne ñoom ñoo dugal ñetti bi yu Génération Foot di fàttali ni prochain tour bi Génération Foot dafa fas yéene dajeek équipe bi di euh, équipe club égyptien bi di Zamalek bu Caire ñu ngi ko match boobu mu nekk beneen match bu am solo bu Génération Foot fas yéene amal ci second tour Ligue des champions africaine yi. et ñu dem France ak euh, suñu gaynde yi mm. Mbaye Niang buteur Gana Gueye qui démarre aussi au PSG. effectivement euh, Pape Cheikh euh, kii di Mbaye Niang démb gis nañ mu dugal contre Strasbourg. moo jëm ci wàllu tàggat yaram daan ko gën a développé tey ci guddi d'ailleurs. effectivement sport voilà ñu dañ ci ñëw ak surtout taxawaayu Idrissa Gana Gueye démb mu nekk début bu am solo bu mu def ak club mu bees bii di Paris Saint-Germain mu jógee ca Everton ñëw ci club bu bees bii di Paris Saint-Germain Idrissa Gana Gueye démb def amal na match bu am solo. Euh, digganteem euh, Paris Saint-Germain ak euh, Toulouse Paris sax moo gagné 4 buts bu am solo bi mu def ci début saison bi ak clubam bii di Paris Saint-Germain. j'ai moom wax na ni dafa teel a dafa ñëw rek bokk. wax na ko ndax démb boo gisee match bi mu def match bu am solo la ndaxte c'était ce n'est pas du tout évident ngay ñëw démarrer rek ak surtout club bu toll ni Paris saint surtout moom poste bi muy joué dafa nekk poste bu stratégique surtout milieu ko coach bi doon juelo mhm. démb nga gis ko mu am ci taxawaay bu am solo nee amul problème intégration gis nga ko entraînement entraînement ak relation bi mu am déjà ak coéquipiers yi di ñoom euh, Mbappé ak euh, ki nga xamante mooy coach bi di Tuchel mhm. gis nga ko moo tax mu ne amul benn problème intégration mu nekkoon très intéressant donc loolu moo jëm ci xalaatuk euh, Idrissa Gana Gueye ci matcham bu njëkk ci club bi mu intégré di euh, Paris Saint-Germain euh, Saint-Germain mhm. mais mais mhm. PSG <laughs> ici c'est Paris 9h30 merci Mamadou Ndiaye on